إلا الله لا إله إلا الله لا di sant Sëriñ Tuubaa moom Sëriñ Fall Baal Muridina di leen di nuyu waa dëkk bi yëpp di sant bi Sëriñ Fall Fall si yëpp Sakkoor ak mboolem njaboot si yëpp Sakkoor gépp di leen di nuyu te di ñaan yàlla yàgg leen ma leen wér dëkk bi di Touba Linguère dafa doon loo xam ne si eh, dafa doon eh, dëkk boo xam ne si dañoo am ndimbal ndimbal nag dañoo xam ne waaye tamit na la ci gën mooy ki ngay dimbali nga xam ne dañ koy dimbali ndax day gën a neex a dimbali Touba Linguère dafa doon dëkk boo xam ne eh, dafa sukkandikuwul ci gouvernement sukkandikuwul tamit ci ay nasaraan moom Touba Linguère mu ngi sukkandiku ci liggéey ak yàlla ak doonu bi bu wér Touba Linguère foofu lay foofu la taxee foofu lay doxee jëm yi li leen fi indi di waxee Serigne Touba lu ji yàgg yoo xam ne noonu dañ ñëw ñëw di ko yeesalaat rek Serigne Touba dafa toog ak mag ñi ci njaareem mu xamal leen ne leen de am ko wax ne ko warga yi may defal de suñ borom may na ma loo xam si bu ma ko ñaanoon tifli ko ci ma naan ko ma jox la ko nga naan ko bis bu yàlla sàkk yéefar ciy faatu kon waaye nag loolu taxumaa jóg mm, ci fere yi mu xamal ko man de soo ma ku da nga ko naan mbaa nga def ko ci joxum ma naan ko suñu tubaab ne ko loolu taxu nu jóg li tax a jóg mooy jihaadu nafsi kon jihaad jihaad jeex na da ngay jihad ak sa bakkar jaayante sa bakkar moo fi des kon euh, waaye soo amee soo soo yoree sa mbaam dem ba ci àll ba nga sëf ko di ñibbisi mere ko tax nga dóor ko ba rey ko da nga guddee àll mbaa nga yenu sëf-sëf kon li may def mooy dama leen dama leen not ba nga xam ne si su ëllëgee fu ngeen leen jëmee ñu jëm fa te duñ ko sañ bañ loolu la Sëriñ Tuubaa wax kon loolu yaakaar na lii bokk na ci ndax euh, du caagi ne moom mi la rek wala ñii waaye maanaam day dox di dugg ci réewum Sénégal ndànk-ndànk ak yeneen réew yi waaye yaakaar naa tubaab yi bari na ci réew mi loo xam si boo ko xoolee wala nga teg sa bët di nga xam ne lii du caagi ne réew mi fi def du ñaq réew mi dana leeral lii liggéey la boo xam ne ci tubaab yi la jógee te baaxu Sëriñ Tuubaa moo na ci jot ne war tax ñu mën cee jariñ waaye du caagi ne ak njàmbaar la wala xel mu neex moo tax loolu am ndax ki nga xam si dafa dund dund ba ak dundam euh, lépp lu bakkanam laaj mu def ko mu dem ba nga xam si neen daal man sama bakkan euh, su soxlaatu lu neex li mu soxla daal foo xam ne si ñoo xam ne si damaa fekk ñoom ñu sonn mosunoo jaar ci ci ak yàq mosunoo am lu leen doy ñooñu laa bëgg a xam fu mu féete ma dem fa euh, di leen di leen kon loolu liggéeyu sëriñ bi la te ñu mel nii bokk na ci waaw te li ngeen fi wax ci tàmbali ba léegi gëm naa ne ak yokkute dina fi am ndax ki nga xam ne moo san sanc dëkk bi di si ñëpp saakoor kooku yaakaar naa ne euh, xëy na ñeneen lañ koy leeral waaye doonatul dëkk bi ndax euh, ay jëfam ak baatinam daj daj na réew mi ñu bari ñu ngi ciy jar ñu fenn fu ci nekk waaw mais koo xam ne yëngu ko wala yëngoo te te pas-pas bi ngeen amee ndax li ngeen wax lépp wax ju rafet la wax ju tege ci ak taalu bi la ndax waxugu leen fii kenn ku ñëw fekk leen seen kër tege leen fa ay saako ceeb hmm. wala mu tege leen fa suukar wala mu jënd leen ay lamp ngeen nit kenn ku jënd da ngaa wax li wala fi naan euh, soo amee sa xarit buy napp jën saa may lo jën da lay jàngal nañuy nappe moo gën yéen loolu ngeen wax kon gi ngeen bëgg ndax ndox moom bokk na ci li nga xam euh, bokk na ci lii lii lii tax doomu aadama bi mën a dëkkee ndax euh, li ngeen wax léegi ne dëkk bi dafa yaatu ndax euh, muy séeréer si muy pël muy olof daara yi fépp fu waay mën a nekk tamit euh, ci Touba Linguère nga bokk kon noonu li ñu tax a jóg mooy defar Touba ngeer ak bëgg képp ku dëkk Touba Linguère nga am jàmm fa nga nekk xéwal fekk la fa goo xam du yem ak beneen dëkk boo dëkk loolu moo la ñor loolu moo moo moo suñu yitte ndax garab bu la sutul dina mën a may ker dañoo bëgg Touba Linguère sut dëkk yëpp tiim dëkk yëpp ba nga xam ne ku fi dugg am ker gu la doy sëkk ba doo soxlaa di tëdd fii ci ker gi di xool geneen garab da naan gi ma dëdd de doy na ma sëkk jërul may jàll ci gële a kon kon loolu ngeen wax dëppoo naag li ñun suñu bëgg-bëgg dëppoo naag li tax suñu borom wàcc na wàccee na fi ndax ñun yàlla da fi wàccee waaye wàcce ñu fi ngir ñu tëdd di nopp noppaloo ko dal rek kenn ku ci ne koo gis mu ku ne na muy dunde na xam ne Euh, am na neen lu mu gën a bëgg a nu ko gën a fii ndax euh, doomu aadama suñu borom mooy xalax naa insaana fi kabari euh, ma res dana man xalaxal jinne wala insa bind naa nit ak jinne ngir nu jaamu waaw kon daal waaw laxat xalax naa insaana fi kabari dafa wax ne bindu ma leen tamit ngir ngeen nekk fi di noppal rek kon képp koo xam ne ngaa ñëw àdduna tamit jàpp na yow da ngaa war a dallu da nax sa bopp ndax dunyaa si junul moom ni naw jànnatul kafirin ah, adduna mooy mooy mooy mooy àjjana yéefar yu bon yu wedd yàlla di tiisu ñu baax ñi nga xam ne dañoo jëm ci yàlla kon képp koo xam ne da ngaa doon ab jullit te sa njullit wér waroo fii seen ab nooflaay suñ waxee loolu tamit bul jàpp ne waroo am dara waaye dafa wax ne li ñu tax a jóg mooy liggéey ak jaamu yàlla ak not sa bakkan te loolu képp koo xam ne yaa ngi koy dunde ak loo bari la bari la yaakaar naa ne sa dund neexatul ndax euh, comme ni taal bi waxee ñun moom dañuy def sant saa su sant rek ndax taal bi moom du noos day sant ndax noos mooy lépp loo xam sa bakkan laaj na ko nga def ko doo ci xool yàlla rek lépp rek boobu dara looloo noos sant nag mooy li nga xam si yàlla dala ko digal mm, euh, tem tagan nga di ko def saa su ne kooku moom am moom it euh, ci lu dagan amul limite loolu mooy sant kon ñun dañu sant saa su ne di leen xamal ne euh, fii daal li ma bëgg képp ko xam ne danga fee nekk ci Touba Linguère yàlla dogal nga nga xam si bu ñu ne foo dëkk nga ni Touba Linguère nga tudd tur woowu rek ak foo ma nekk ci suuf si na sa xel daal te xam ne euh, xéwal dina la fekk te doonatul maanaam lu ñu digge ci diir bu gàtt la ko lay am la sëñ moom ñaan ko suñu borom te lépp lu mu ko mos a ñaan defal na ko ko te leen lu ci ne tamit dafa am foo xam suñu borom moo fay jaarale ndax euh, man li ma gëm ak li ma dund gëmuma euh, Touba bi li ma gëm gëmuma tamit tëdd tëdd rek di nelaw di xaar pour dimbali euh, li ma wax léegi ni ma la fekk loxol borom man ñoom li nuy xalaat jàpp naa ne man maa ngi ko ñaan suñu borom yaakaar naa yàlla dañu dimbali dina defal ban am suñu xéwali bopp ñun ñëpp nag ndax man sama wàll bopp maa ngi ñaan di ko ñaan suñu borom di ci góorgóorlu di sabablu yaakaar ne dina mos a defal xéwal goo xam ne képp koo xam ne dëkk fi rek eh, dina mën a am loo xam ne dina ko jaarale ci sant ci man mu jëm ci yow nga di ko jariñoo ci xéwal goo xam ne si eh, benn mu doy la benn wala mu doon loo xam ne dina la dimbali nga sukkandiku ca ba fa ba sa bëgg ba sa bëgg-bëgg àgg nga mën caa jot di ko jariñoo saa su xam nga loolu mooy eh, mii tamit li wax leeral ndax dégg nga leeral léegi xam nga moo gis mbirum sëñ bi lim lim jafee xam ndax eh, moom bi man xaw ma na ci noonu lañ xamante ndax tubaab boobu muy wax mii xam naa ko lu mot ay xam naa ko fu xewee mu ñëw tubaab di ma yeneen tubaab yu bari sax eh, it muy wax ma ma koy jàmbat dëkk bi nan la ñu war a def ba nga xam ne si ndox mi dana yokk hmm, waaw léegi euh, raxmaan mi tamit daal dogal mooy bi mu demee diir bu gàtt moo ma leeral ko loolu ne ko daal man li sama bëgg-bëgg mooy dama bëgg Touba Linguère am beneen forage beneen forage bi ñu amee euh, liñ liñ koy doyee mooy dañoo bëgg bii fi jëkkoon nekk nu bàyyi ko fii nga xam ne ci jur gi dana ci mën a naan ak ak dëkk bi di ci naan di ci naan tam jëfandiku euh, beneen bi tamit ñu def ko pour pour pour di ci bay te loolu maanaam ñaar yëpp ci dëkk bi lay doon. Hmm. du caagi rek dañ jël bii ne force mooy doon lii bii mooy doon waaye ñoom ñaar bu ñu fi bokkee nekk boobu boobu bu ñëwee tamit bu fekkee am na mbànd moo xam moo gën a mag mi gën a kawe su boobaa tiwo yi dana gën a mën a sori dem ci gox-goxaan yëpp kenn ku ne fa nga nekk tiwo yi fekk la nga xam si euh, day nga xam ne fa mën a sàmm la nga bëgg a bay di ko mën a bay te kenn du la sonal ci dara. nga xam sa njaboot tamit danañ gën a mën a am équilibre ci ci ci ñëw di baagante fii di taxaw di xaar ndox mi ubbeeg loolu lépp ndax ba tey sax maa ngi ci waxaale kii wàllu wàllu kii bi récolte bi ñuy samp mm, nit ñi di joroote loolu dama leen leeral saa su ndax ni ma ko bëggee mooy loolu waa fànn googu tamit nañ ci gën a góor góorgóorlu ci bu yàgg du suñu dara ñuy waxtaan nañ ci sax euh, pour woo saal yi bi nga xam si moom nañ ko tekki loxo mu gii di ko di ko leeral ñi nga xam dañoo dëkk fa sori di ñëw di root si nañ leen jàppale di leen yombal ba waxtu wu ñu rek dañu war a daal di eh, am ndox mi ñu daal di delluwaat ci saasi waruñoo taxaw naan kii ne root kii rang rangoo sax dafa doon loo xam ni eh, xam naa ne dinaa ko ci gën a dolliwaat ba keroog li ñu séntu lépp ñëw eh, buñ ko gënee mën a yaatu ba revenu yi gën a yaatu foofu nga xam ne si ku ñëw daal rang dootu ci amati ku ñëw rek da ngay duy daal dem ba ngeen xam ne kon ñun yéen jooju ñu bëgg ba mu tas ba fi ba ndox mi àgg fi yëpp ñëpp di jariñ ñu mën koo teel a tàmbali ba ngeen xam ne loolu moo gën ndax ndaa sax boo fa demee fekk mar ba naan fekk fa keneen mu taxaw di naan rek diggante boobu rek dana métti ci yow waaw boo duggee ci wana soxla ndox fekk ndox ma jeexit diggante boobu di nga yëg ne jeex na xam nga te loolu te ndox ndox daal dafa doon ndox bokk na ci yaatal waaw koo xam si yaa ngi koy yaatal daal ndox boo def naa ne am na suñu borom am na neexal bu mu la dig boo xam ne si boo liggéey di nga xam ne joxe ndox ak joxe ñam lu rafet la waaw kon lépp la lépp euh, euh, ak yaatalante la euh, koo xam te jëfandikoo tamit xam naa tamit sama xel moo rek wala xamoo nit ku mar lan mooy naq fa mar waaye soo ko xamoon yaakaar naa di nga di nga di nga di nga jàppale nit ci ba ba loolu bëgg naan daal naan daal delluwaat ci ay itam mu gën a gaaw waaw ndax xale yi sax dañu leen yëram xale boo xam day bàyyi yaayam mu taal añ wala mu bàyyi bàyyi wàcc ci tool yi tëdd di ko xaar na ko doon root li ma ñëw wala jur gi mbote yi gën a ndaw ne fa war a naan te heure naan jot mu yàgg fa yenn ci teen loolu yëpp métti na loolu daal kon bokk na li nga xam tamit nañ koy gën a yaatalante di ko gën a dimbalantee ba nga xam si ñëpp dañu am jàmm na daal bokk na ci yittey sëñ bi waaw ñu sant yëpp ngeen jaajëfal bu baax a baax waaw suñu xel suñu xel daal na suñu xel seet na baax ndax ñu neex dëkkal ngeen waaw ñu neex a àndal ngeen tëgg waaw góorgóor rek gën a laabirante rek kenn ku ci ne loo tane sa morom ci aw yiw mu dee xel ma rafet lu baax nga di ko digal rek mu gën ca euh, tàbbi te ñu la tey baalante àq rek fu ñu toll waaw ndax doomu aadama moom daa mëtu baax na jërë ngeen jëf